نصرتني فإنك النصير ما حوت أيبي إنك البشير ثم الصلاة على المختار من مدر خير البرية من باك ومبتسم للمصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحباب حسنا يا ربنا حبلي بحق الكوثر yumnal hayati wa ujuri kasri amin rajawna ila naar faal li kawsara sharifun karimun inda tuuba kawsara assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit bokki taalibe bokki senegaal bokki àdduna kilifa yi nuy diglu tey jàkkaarloo noonu seenu taalibe Moustapha Seck Baye Fall mu sëñ Amdi Khady Fall moo leen di nuyu di nuyoo bu ànd ak xol bu sedd ànd ak ak cant di ñaan sa borom barkeel bis bii te defal na ci ngërëmul ñu seq bis bi muy borom Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Sidi dey def na lu mat a def ndax alal day nuru boroom bu taxawalee bis bi muy bisu borom Touba Xaadimu Rasul dara jaale ko maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina kon alal daa wuyu boroom ndax bërki démb rekk bu Cheikh Momadou Muntaqa yal na fi yàggate ànd ak wér ba lim bëgg liggéeyal maamam ci woon ñu man ko ci barke Cheikh Mohamadul Bachir defal ko sëriñ Amdi Moodu Mbenda Fall moom Cheikh Moodu Mbenda maam ci Ibrahima Fall xalifa général Baye Fall defal ko sunu sang bu tedd bi nga xam ne mooy sunu wasee la sëriñ Amdi Xadi Fallum sëriñ Asan ak mbooleem ñun ñu ñu bokkal maam ci Fall ñépp bàyyiwuñu kenn kon bu Cheikh Mamadou Mountakha wootee bis muy bisub sant sëriñ Touba. ci boole gum gum ko booleeg noonu sant yàlla ci boole gu ko yàlla booleeg sëriñ Touba waaye nag mu jaar ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina dara jaale ko ko mu tudd bisub sikkurullaahi tey ñu taxawul guddi gu toll nii suñ sii di taxawal ko kon alal nur na borom li Cheikh Mamadou Mountakha defan moom it feelu na ko maam si Ibrahima Fall Babul Mouridina mi mu ko dara jaal nag moo yey moo yey de ndax damay wax nii bërki dem takk Modou Mountakha danoo defal loo xam ni borom Touba Xaadimu Rasuul moo ko jëkk a defal maam si Ibrahima Fall Babul Mouridina bàyyi sëriñ Fall ci jamono Cheikh Saalihu la fi bàyyi ko maa ngi siyaare suñ daam jaxate mi nga xam ni su ñëwee daaru minam mooy mooy daloo Baye sëriñ Baye Serigne dafa wax ni man la borom Touba yónni ci maam Cheikh Ibrahima Fall ni mu sëriñ ma ne ko Mbàkke ma ni demal wol ma Ibra Fall nee bi ma ko wooyee ba nu ànd ñëw. nee na keesu borom Touba gi keroog nun ñi ñëw nun ñetti nit rekk a dugg maam Cheikh Ibrahima Fall bay sëriñ Fall mu sëñ Touba yónni ak sëñ Yaaram Mbay ñi ci des néeg leen bay sëriñ nee bi ñu ñëwee ci ko baax ki borom Touba Xaadimu Rasuul nee na ñett lañu fa fekk borom Touba Xaadimu Rasuul ci boppam ak sëriñ Mbay Saar Ngën ak sëñ Aliou Touré nee na ñett lanu ñett lan fa fekk muy juróom benn bàyyi sëriñ faal ne na booba xaalisub kayit tàmbali naa génn ndax bu jëkk ngurdu rekk amal nee na saaman si ibrahima fall daal di génn kayitu ñaari téeméer ci ci poosam daal di koy jiñ ñaari téeméer ba mu tollook toogaayu ko baax ki borom Tuubaa Xaadimu Rasuul mu bàyyi fa ñaari téeméer ya bàyyi sëriñ faal ne na borom Tuubaa jël baaramu diggam bii fi tax ñaari téeméer yi fi seera faal teg mu sori ko mu dabaatal ko mu sori ko mu daba dabaatal ko fi taxaat ko mu sori ko ni ko Ibra Faal laaj la alal taxul ma di la woo saa borom mi kenn tey kenn ku amul ab ñaareel du loolu mooy tawhid yàllay kenn tey kenn ku amul am ñaareel saa borom mi kenn tey kenn ku amul ab ñaareel moom laa la bëgg a kennaleel tey ba tey yaag sa borom ngeen di kenn bàyyi sëriñ ne saam si rafan yaaram mu ni faar mu ni lu ko baax ki wax mu ni ko baax ki dani laaj la alal tuxul mu de la woo dañu saa borom mi kenn te tey kenn ku amul ab ñaareel moom la la bëgg a kennaleel tey ba tey yaag sa borom ngeen di kenn mu ngi si gën a ah, di kenn ak neex na lool de doom di kenn ak saa neex na lool de doom keroog loolu la yenn yendoo bàyyi sëriñ ne na bis boobee fukki fan lañ ca teg ak juróom ñaar ku baax ki jóge njaareem ñu bisi Tuubaa kon borom Touba moom laata mu ñibbisi kenn le na maam si Ibrahima Fall ak borom bi tabaraka wa taala ñuy kenn rek mu jeex ci moom ba jeex moo tax moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha murid yépp ko war a ñaanal waaye Baay Faal yi nag ñoo ci rawatina ndax li mu nu defal daa rëy waaye maamam ku jëkk defal maam si Ibrahima Fall ci bis boobee kenn le ko yàlla doogu ñibbi waaye mu am lu doxaat sunu diggante ak Cheikh Mouhamadul Bachir muy sunu digganteeg Daarul Minnan bi maam si Ibrahima Fall demee toogaat fi ñetti at ba 1930 la lay 1927 la wan ba 30 saa maam si Ibrahima Fall tolle ci nag war a ñibbisi war a fekk si borom Touba Xaadimu Rasul Touba. at moomee dafa teru di benn panub tamxarit benn panub tamxarit boobee di bisub dimanche saamam si Ibrahima Fall xëy wax ni mboolem lu ma am ci kër gi nañu ko génne ma dem yit ko si sëñ Moodu Moustapha Mbàkke sama sang bi ñu daal di génn jur gi giléem yi génn ci gétt yi nag yi xar yi béy yi ginaar yi ñu dajje lal yi lalli basang yi mu teg siisam bi ci ëtt bi rek bëkk néeg yi yooxu ni kër gi tas na faal kër gi tas na faal mu ne lu ko tas ñu ni ko dara disu ci dara disu ci kër gi mu ni dama ni lu ma am na génn lu ma am na génn ma yit ko si Moodu Mustafaa Mbàkke sama sang bi ñu génne lépp ba loo xamante ni mën nañu ne maam si Ibrahima Fall ko moom ci kër gi lu dul xotti néeg yi amut ñi di mu dem yëti ko Cheikh Modou Moussa Mbacke radiyallahu taala anhu Cheikh Moustapha al Karim ñibb ca suba sa di ñaari fan tam xarit di bisub altine Cheikh Mamadou Bachir mbàkke moom borom Tuubaa Xaadimu Rasuul daal di agsi nuyoo Baay Cheikh Ñang daal wax sama maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko sëriñ Basiiru Mbàkke day nuyoo mu ni Cheikh Mouhamadul Basiir ñu ne waaw waaw mu ni xeexee te xam ne doomi borom Tuubaa moom bu nuyoo dañ ko war addiyal addiyal daf da war te li mu amoon lépp dim mànga na ko yët ko yët ko suñ Moussa Mbàkke magam ju baax ji ma gis Cheikh Mamadou Bachir mu ni Cheikh Ñang bàyyi Cheikh Ñang ne faal mu ni ko kër gi daraa ngi fee kër gi ndax daraa ngi fi mu ne ko daraa ngi fi de faal mu ne ko dara ji lu ko fi indi mu ni ko juloo bii ñu téye woon bagaasam ci gaar bi nuyoo si ne indi na fi ñeen fukki dërëmi ngordu jëmm jii jóge woon dee ngañ indi toolub àllarba toolub àllarba boobu mu mat na fanweeri dërëmi ngordu ndongo lee toog baayam jébbalee si ko fi ci suba baayam boole woon na ko ñaar fukki dërëmi ngordu muy juróom-ñeen fukki muy 450 francs mu ni hehe doom yéen xer yéen a doom woo leen ma Cheikh Mamadou Bachir ñu woo sëñ Bachir Mbàkke mu ñëw saamam si Ibrahima Fall ba noppi tàmbalee waxtaan ak moom sëriñ Bachir na ko nag dama bëgg a jàll dafa am aw yoon wu may dox saam te ref ni ko Mouhamadou Bachir fanaanal fanaanal sa baay dama diggan ngan sa baay dama diggan ngan te ngan gi àppan naa ko ba ca soxna may caat ma Mamadou Basir fanaanal te man Ibra Faal jóg naa ba noppi ginnaaw ñëw nga nag fanaanal doom sëriñ Basiru ñoral ko yoon wi mu war a doxi centre fa ni ko Mouhamadou Basir mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo fanaanee dinaa la boolee mbooloo moo xam ne duutoo tàqali ku ñum àddina ak àllaaxira sëriñ Basiru fanaan ci suba sa di ñetti fan tam xarit di bisub talaata ñett rekk toog ñett saamam si Ibrahima Fall tëdd wetu ndijooram gii jël jël boppam teg ko ci pooju Baay Seex Ñaŋ sëriñ Bassirou Mbacke toog jàkkaarloo ñoom ñoom ñaar saamam si Ibrahima Fall jël baaraam bu tedd ba di tomb ci suuf na borom Tuubaa Xaadimu Rasuul daan tombe naa dibeer dibeer muy dimanche dibeer altine talaata làmb ji toj teggaleen baa ngi ci sama poos dibiir altine talaata doom làmb ji toj te galen baa ngi ci sama poos galen bi toj làmb ji te tey la talaata bàyyi Cheikh ñang daal ni Cheikh Mamadou Bachir sëriñ bi mu ne Mbàkke mu ne ko mag de boo nekkee moom muy wax ngay xam li muy wax ba yàgg xamatoo li muy wax di nga jaaxle saamam sir fa tiin jàkkaloog bàyyi Cheikh Niang mu lam bàyyi Cheikh Niang lamsal mm, Cheikh Niang mu ni faal saam sera faal ni ko diw am na ngërëmul yàlla wàcce naa ko diw am na ngërëmul yàlla wàcce naa ko diw am na ngërëmul yàlla wàcce naa ko waaye diw ak diw ak diw am nañu ngërëmul yàlla wàcceeguma leen Moustapha Fall dina leen wàcce muy tàggatoo bu wér Moustapha Fall dina wàcce bàyyi Cheikh Niang jooy mu ne ah Cheikh Niang mu ni Fall mu ko ah doom boo jooyee kat doo neex a waxtaanal boo jooyee kat doom doo neex a waxtaanal foofu la maam si Ibrahima mu wàcc ab liggéey ci kanamu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke ñaar rek teew ko bàyyi Bachir sëñ Bachiru Mbacke bàyyi Cheikh Niang sëñ Bachiru moo randu si toppatoo saa maam si Ibrahima Fall defar ko ba mu yegg dem wax ko magam ju baax ja Cheikh Modou Moustapha Mbacke radiallahu taala anhu dem wax ko si Moustapha Mbacke si Moustapha Mbacke ne ko nang ma ko yóbbul Touba fanaanal fanaanal ma ko kër sëñ Fallu sëñ Basiru moo indi Sëriñ Touba Touba moo indi Maam Cheikh Ibrahima Fall Touba mu ne ko indi fanaanal ko kër sëriñ Fallu ba ma ko indee kër sëriñ Fallu ca panaan ma panaan ma maa toog soxna Kunta Mbàkkim Sëriñ Fallu toog yal na yàlla yokk ay leeraam ak mayam moom la Sëriñ Fallu joxoon Sëriñ Asan Faal soxna Kunta fi la ko maamam Sëriñ Tuubaa fi la ko bàyyi ci àdduna la ko bàyyi ma toog soxna Kunta Mbàkke toog yaa Astu Jaañ doon soxna Sëriñ Fallu toog soxna si toog ci canapé bi yaa Astu Jaañ toog ci wetu ndijooram nii ma toog ci wetu càmmoñam nii ci suuf yaa Astu Jaañ ne ko soxna Kunta mu ne ko faal mu ne ko keroog bi nga xamante ni sa maam Cheikh Ibrahima Fall fanaan si na Touba de kër Sëñ Fallu sa baay mu ne ah, mu ko keroog maa aye njëlul Sëñ Fallu la keroog maa ko maa ko aye maa togg añ maa togg reer maa dënale coono bi jàpp ma ma nelaw ñu indi Cheikh Fall ci guddi gi te yëguma ko nee bi ma xëyee bu doon léegi couloir li lay tudd couloir nee bi ma xëyee fi ma jaar ne naa génn ci ginnaaw kër gi damm ci poften mi matt mu ma tàngale kafe nga xam ni booba Touba réyul kër sëñ Fallou Guèye su fekkee boo génnee kër sëñ rek yem ci poften bi mu doonum àll booba Touba réyul soxna Asta Diagne moo wax ni yaa Asta Diagne ne ba mani naa génn ci ci ginnaaw kër gi damm ci poften mi matt mu ma tàmbale tàngale kafe nee ma gis lu ko lu ñu sàng ak mbàjjum leem nee na mu tiit daal di ñëw ci wayjur soxna Kunta Mbàkke yaa Ramatulaay Njaay nee na ko soxna Mbàkke ne ko faal mënu ko mu ñëw ci sa yaay ne ko man yaa Ramatulaay dama tiit mu ne ko loola tax a tiit mu ne dama noon naa génn ci ginnaaw kër gi dama ci poften mi matti moo tàngale café waaye ma gis lu ñu sàngee mbàjjum leen mën ko santal yàlla samaam Cheikh Ibrahima Fall lañ fi indi biig dangaa sonn moo tax yëgoo ko nii sii di def nii njobatu borom tubaa gépp ci la ñu ànd Cheikh Rafal sëriñ tubaa Cheikh Rafal cët suba sa yaa astu jaan ne na sëriñ Modou Moustapha Mbacke agsi nit kees sëriñ Basiiru agsi sëriñ Fallu génn sëñ Moodu Mustafaa Faal sëñ Moodu Mustafaa Mbàkke ni sëriñ Fallu ndax saa baay Seex waxal na la ci boppam dara mu ni ko déedéet sëñ Fallu ni ko daa waxuloon ci boppam dara mu ni ko déedéet ñu ni sëriñ Basiiru yow mi nga xamante ni ci say loxo la mujj ndax waxan wax wax na la ci boppam dara si Basiru ni déedéet ñu ni kon nag saa baay seex ni mu demee woon ak ku baax ki borom Tuubaa Xaadimu Rasuul mënuñoo soree fos ku yéenee waajal yóbbu ko fa ci ko ci baax ki fi mu pénc ba lañ ko daan waajal yóbbu ko fa ca borom Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye Cheikh Rafal du ko nangu lu tax diggante càng gi ak njaam gi li waxkat yi bari bari bari bari bari doo dégg kenn ku la ni Serigne Touba si maam si Ibrahima Fall nii ne Serigne Touba sama Serigne ba déedéet sëñ ma sama sang ba rek cang gi rek la wéral cang gi rek la wéral lan ndax ba ko borom Touba ne Ibrahima Fall mu ne ko Mbakke mu ne ko damaa bëgg nga wax ma loo gën a bëgg ma defal la ko la ma ko la ma ko jëkk wax da ko ni li ma gën a bëgg mooy suba gu ma xëyee gën la fee bëgg rek laa bëgg moom laa gën a bëgg. ba mu ko gërëmaatee te wàccul ca daada ja xëy na ko Ibra Faal mu ne ko Mbàkke man ko wax ma tey loo gën a bëgg ma defal la ko mun ne ko li ma gën a bëgg Mbàkke mooy sa càng gi sa càng gi fu mu yegg na fa sama njaam ngi yegg sa càng gi fu mu yegg na fa sama njaam ngi ci koo xamante ni soo toppee askanu kër baayam war naa falu dameel teeñ war a moom kajoor ndax dameel man di sit faal ñaara dox ñett dox diggante ak Cheikh Fall defaloon dameel Kajoor maam Biraan a fi dox maam Biraan Njabi Amadou Faar Roqaya maam si Ibrahima Fall war a falu dameel teeñ ci Kajoor waaye bi mu gisee borom Touba Xaadimu du Sëriñ Touba. juddoom boobee nga xamante ni ngërmi la mooy maam si Ibrahima Fall mu jaay ngërmi nga jënde ko ak taalibe raamal Sëriñ Tuubaa nangoo doonub jaamam te Kajoor gépp war na dooni jaamam Cheikh Fall dimension bi mu toll moo rëy bu dee ci wàllu kër ndeyam maam sëy na bu njaay bokk ci njare ba alquraanul karim wàccee ci réew mi waa njare kenn gën leen cee tibb mu bokk ci maam sëy na bu njaay di doomi soxna te boobu ñaari valeur yooyu ñoo am ci Sénégal gën ci rëy muy doon doomi soxna wala nga doon gërmi war a falu dameel maam Cheikh Ibrahima Fall kër baayam gërmi la war naa falu dameel niigum ndeyam doomi soxna la ñu taal taalub jàngu mu mu boole nag ñaari cër yooyu yëpp sukkal borom Tuubaa Xaadimu su raamal ko su jotal ko jël lépp ngir lan ngir taxawal lislaam loola ba mu amee sëriñ Mën Dumbe yaa asta jaan ne sëñ Mandoumbe moo daal di yëg si ci kër gi ci suba ga fekk sëñ Moustapha Mbàkke sëriñ Fallu sëriñ Basiru ni man ne seex waxat na ma dara ci boppam ñu ne ko ah mu ne ànd nanu ba ca armeel yee mu dagg ak dimb dimb ak garab la mu dagg dimb ga dagg folet car ya ca kaw folet reen ya ca suuf yenu ko samp ko ci barab ni ma ëpp ma dum dumbee ma ne ko mbàkke mu ne ma bis boo ko saa borom dogalee fii mooy sama barab ni ma Ahmadu Ndumbe ma ne ko Mbàkke mu ni fii nag jàkkay jàkkay sëñ bàmbaawan jàkkay sëñ bàmbaawan ci la sëñ bàmba daa jullee jëkk muy dem ci géej ga loolu tax ñu yóbbu maam kon taxawal diine lislaam faw am ku jiitu am ku topp boo gisee yàlla yónni ay yonent yónni ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ñeenti junni muy xakkadun minal uloofi faaga bokk ci limba fasahatul kalaam la amma jamiil anbiyaa i wa rasul fa xakkadun minal uloofi yaa rajul faaga bokk ci xakkadun mooy limba kon yàlla bëgg na toujours am koy taxaw ca kanamu jaami jaamam yi moom yàlla ni leen yàlla minu góoli bind ni na ñooñe ne ah ba alquran bi mu ñëwee loolu rek la indi ndax bi bi yàlla bindee jaam ñi waaye xamaguñu kuy seen borom da leen a laaj mooy xalastu bi rabbikum xalastu bi rabbikum ñëpp ñëpp a ba ci nun ñi suñu ruu yi kenn ku waxu ni xaaloo balee amul xanaa buur buur bala moo joxe maanaam bala moo santaane dara joxe ay luwaam xanaa xanaa ñamu ñamu moom te yilif leen dañu koy nangul dañu nangu nguur ga moo tax yàlla laaj ni kuy seen borom waaye bañ ba mu ko waxee ñëpp ni yow ñëpp ko ne yow ba ko ñëpp ne yow nag mu doo ko tàmbali indi nag ab luwaa teg luwaa boobee Cheikh Mamadou Mountakha ca ca ca la delloowaat jaam yëpp bërki démb muy lan muy baatub laa ilaha illallah moo jëkk ñëw ci diine lislaam ndax boobu guddig riñaan gi amagul te guddi riñaan gi ci la yonte bi salaa salaam jëlee waxtu juróom julli ci la jëlee weeru koor ci la jëlee aj màkka ci la jëlee asaka ci la jële yooyu yépp ginnaaw ci riñaan gi waaye nag baatub laa ilaha illallah nag moom moom lay saa borom jëkk jox muhammad mu ànd ak saaba yi lu mat nangam at fukki at nangam di jaamu yàlla ci laa ilaha illallah wan jaamu yàlla amul alquran wax na ko suñ xul uh, yaa kitaab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla nabuda illallah wala nusriku bii say an ñu maase di wax laa ilaha illallah ku ko nangoo wax di ab jullit ku ko nanguwul wax di ab yéefar baatub laa ilaha illallah boobee mooy santaani gi jëkk ci diggante yàlla ak yonte bi salaa salaam mu teg ko ci loxol yàlla euh, Seydina Jibril mu teg ko ci muy alquran mu teg ko ci loxol Muhammadu Rasulullahi alayhi salaatu wasalaam moom Rasulullahi wax ko jaam ni diglu leen nag ñuy wax laa ilaha illallah doomi aadama yi daa doon ñetti kuréel nag ñetti kuréel ñett bi yàllay woote te baatub laa ilaha illallah wàccagul booba lu yàllay wax ci alquran yaa ayuha naasu lay wax yaa ayuha naasu nag ko sa bopp jëm kaw say tànk jëm suuf ci yaa ayuha naasu nga bokk bi bi loolu ñëwee ba ñu war a toll nag ci ñi ñi gëm nu nga wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah muy baatub laa ilaha illallah ku ko nangoo wax dib julit ku ko nangoo def da ab yéefar ñooñ bis saa bu leen yàlla woo danaa yaa ayyuhal lasina amano muy benn kuréel bi muy noonu yaa ayyuhal lasina amano ña nga xamante ni dañoo gàntal lank nanguwuñu wax baat boobu nanguwuñu ni yàlla seen boroom ñooñu saa bu leen yàlla di woo danaa yaa ayyuhal lasina kafaroo yàlla ci yàlla musul nañu ci ba noppi nun ñi yéen nañu ci gën a mucc ak mboolem askan ci noonu mu am beneen kuréel nag bi bi bi yées nga xam ne loolu mooy liggéey bi nag nit yi diine yépp ci loolu la ñuy liggéey muy naafiq yi nga xam te ne ñoom nangu ni laa ilaha illallah ci seenu làmmiñ waaye seenu xol fasul loola fasul loola ñooñu mooy naafiq yi ñooñ ñooñu yaa yaa ayyuhal munaafiquuna leen alxuraan di wooye muy ñeenti cër ñii saa maam si Ibrahima Fall nag daal di xam ni borom Tuubaa mii ba mu ñëwee lim wax mooy lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu junnatu wal xaraa wa inni ahmadu yeesal sunna muhammadu rasulullah kuy wax sunna seen Tuubaa mooy yeesal sunna ne ne loolu rek ma indi yeesal sunna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa kon maam si Ibrahima Fall xam ni kon ki ki yeesal sunna ana sunna si mu yeesal mooy san mooy li muy lislaam ti buumu lislaam ci baatub laa ilaaha illallaah lañ ko yeew waaye nag faaw mbooloo mi ànd caag moom te mu mu am na cëri qualité yi nga xamante ni moom su su ko xisee nangu kon ñu bari war nañoo nangu mooy Cheikh Rafal war a falu dameel teeñ sukku raam kon cedd yi moom war nañoo xam ni war nañoo sukka Sëñ Tuubaa war nañ koo raamal taxamuñu waaw waaw waaw Cheikh Ibra ak Dakar waaw wàlluk doomu soxna yi saamam si faal maam seeni bu njaay di wu juróom di doomi soxna dëkk ñare musu ko raam kon doomi soxna yi xam nañ ne war nañoo raamal borom Tuuba Xaadimu Rasuul muy am ñaari drapo yu fi nekk benn drapo bi ku musa wooteel lislaam bi nga ñëwee benn bi nga jël bi des dañu koo bàyyi mu tëdd mooy lan fas yéene doon càng ab sang doomi soxna yépp koo dem ci këram ab sang rekk la waaye nag ab sang faa ma am ñu mu àndal bu ñëpp doonee sang du ñu toppante du ñu déggante du ñu warmaalante du ñu suturaalante suturaalante ma boroom Tuuba jël drapeau càng gi tàllal ko ni sama nuuru daaree ni bi tàllal drapeau càng gi ci kaw drapeau njaam gi nga xam te ni kenn mësu ko numbo jël kenn kenn kenn li tax Cheikh Fall du moroom kenn daal ne cas drapeau njaam gi su firi ko tàllal ko dend ak Serigne Touba Serigne jël drapeau canga bi tàllal Cheikh Cheikh Fall jël drapeau njaam bi waaye am nañu ci pay mooy àddina sépp tariixa boo mën a dégg benn xalifa général la la la la la bay am xalifa généralu tariixa sàngam xalifa généralu tarixa sàngam ñépp ànd ci ak moom te nangul ko ko te mu war noonu suñu yoonu murit bi képp moo am ñaari xalifa général xalifa généralu murit ak xalifa généralu Baay Faal li waral loolu nag drapeau njaam kenn du ko mu jël xalifa généralu mooy Sëñ Muntaxa Mbàkke moo yor drapeau càng gi xalifa généralu Baay Faal jël drapeau njaam gi fi ni mooy si am lim suñu mboodim benn mooy si Arafaal kon lii rek la lii rek la bëggan xoolal mbooloo mi teew fii ñoom ñi su leen doon identifié tey du yomb ay doomi seexal ngi ci ay doomi gërmee ngi ci ay doomi soxnaa ngi ci ay doomi boroomi ay cadre ñi ñi ngi ci yor seeni xam-xam war a mën a attim réew ñépp nangul Sëriñ Tuubaa ci woote maam si Ibrahima Fall bi kon loolu ak cant la kon bu bis bu siix mun taqaa jëlaati bis boobee delloowaat na ci yàlla 24 heures ñuy wax benn baat képp képp képp muy laa ilaha illallah 24 heures adduna sépp maasé di ko wax kon suñ mun taqaa kenn lewaat nañu ak yàlla na borom Tuubaa defan ak maam si Ibrahima Fall kon ma jox ci ñaari kàddu ci ndax heure bi borom maam si Ibrahima Fall moom day Sénégal moom maam si Ibrahima Fall tey Sénégal ndax bi nga xamante ni borom Touba Xaadim Rasuul embarqué na 1895 ñu exilé ko yóbbu ko Gabon Samat Ibrahima Fall jóge Ndar ca daaram da ca tasineer Ganjool ñëw Dakar accompagné ko ko bàkke embarqué dañu fii laa koy nekk fii laa koy nekk daane waaye nañ ma fi wutal kër ñu wutal ko kër waaye boobu lébu yi xam nga fii ma nekk ci Sorano mooy capitalu Ndakaaru nag boobu lébu yi dëkk yi fi nekk yàq jëf kaay fi ndiw mbot mooy mboti pom rëbës tabaxi buur boobu mooy kër libu yi ndax boobu ay ñaay cokkeer sëñc ko am ñaay la yóbbu na turoo ñaay cokkeer sëñc guñu tileen boobu tileen ab àll la ñuy tileen sëñc guñu gël tàppe boobu ay mbëtt dafa bari baatu tubaab la gël tàppe mooy gémmiñu mbëtt booba yooyu sëñc guñu leen booba dëkk cosaan libu yi ñooy ñii saamam ci Ibrahima Fall ñu wutal ko kër ki yàq jëf mu ni daa mel ni dëkk la de ñu ne waa faal mu ni nu dëkk bi tudd ñu ne yàq jëf nañu ma jéggal waaye Cheikh Faal wax loolu de mu ne ah doom nañ mu wutal faneen nañ ma wutal faneen Ibra Faal amul lu dul jëf fu jëf di yàqoo Ibra Faal du fa dëkk ñu ñu ñu avancé tuuti yéen waa waa Ndakaaru laay waxal yéen ñii ñu avancé tuuti ci yàq jëf fi tollu ritol bi yàq ñu wutal ko fi maam si Ibrahima Fall foofa ca ca soofam la bokk maam Sali Fall rakkam am suuf si yaatu soo xamante ni dañ ko ko fee ñu sëñcal ko kër fii ñuy wax lambinaas lambinaas nag tudd lambinaas ambulance la tudd booba booba Euh, hôpitaux yi ñii fi ne la Dantec ak principal seen ambulance yi ay garab yu sedd nekk seen kanam su ñu ñëwee dafa gaare bu ñu demul bu ñu jëliwul ab yu yóbbuwuñu malaat foofa la ñuy gaare ambulance yooyu nag fi ñuy gaare ci kër garab yu sedd yi jàkkaarlu kër maam si Ibrahima Fall ga ñu leen kër si Ibrahima Fall ga ca ambulance ya mujj ñu naan l'ambulance suuf soosu nag comme Dakar laay waxee yii ñii miin Dakar. mu ëmb palais présidentiel pale ba nag dëkku ca woon waaye ca suuf seera fàll bokk moo ëmb sànd gi ñëw ba ritol bi yaat loolu boo ko xoolee lu mu néew néew day mat six kilomètres sa maam si Ibrahima Fall dafi béy mbéyum noor dafi béy mbéyum nawet def fi daara ju mag lu mu am fi njobatu borom tubaa gi nekk ci maam Cerno Ibrahima yal na ko yàlla fayal jëfi Cheikh Fall dafa dem di njobatu Cheikh gi na njobatu suñ di ko dunde ñu fi bàyyi ci diggante doom yi ak soxna yi ak ñeneen fii sànd gi nag ak sànd ak garab la ak garab la ni nga dégg ñu naan sànqaay ngëbu sànqaay comme ne ak sànqaay doone ak garab ak sànd noonu la doone ak garab genn garab gu mag bu ñu ak sànd nekk fii nu jàkkaar lool nekk ci diggu tool bi saaman ci Ibrahima Fall bu xëyee ñu tegal ko toogo bi mu toog mbooloo mi wër ko mag ñi ñenn ñi nekk ci nekk ci tool bi liggéey waaye comme noonu ma ko waxee bu ñu nekk ci tool bi liggéey fi maam Sëriñ Fall toog nag li bu yëpp li gën a bari suñu xëyee nag di di xool ndax système bu yees bii ndax gan la fi waaye mbooloo mi mu àndal ñii jóge kajoor ñoo jóge bawol ñii jóge jolof fu ne waaye jóge fa takk si ñu ndigg di liggéey mbooloo mi bari lébu yi ci dëkk yi may wax ñii dëkke yàq jëf ñi dëkke kaay fi ndiw ñi dëkke mboti pom ñii dëkke rëbës ñii dëkke tabaxi buur ñoom ñépp ku ci lakk saw jën indi ko ci garab googu di di sànd di ko jaay loo jaay mu jar ku ci lakk sa beñe indi nañ ko yóbbu ca garabu sànd ga loo jaay mu jar loolu si loolu maam si Ibrahima Fall Babul Mouridina ba léegi sànd googee far doon ab marché marché boo xam te ni adduna sépp a xam marché sànd ga garabu Seera Fall garabu garabu tool tool dong la woon nag garabu diggu toolam woon kon loolu waaye ci gàttal heure bi bi bi bi loolu amee lu ne mu di ko fi béy di di def culture maraîchage di ko fi béy boobu Hollande yi di jàppale maam si Ibrahima Fall di di di di dongo yi ci formation professionnelle ndax booba nun lii lii lii yi ñu jëfandikoo diggante salade chou nawe carotte yooyu amuñu ko woon tubaab yee ko fi indi maam ci Ibrahima Fall am relation bu ma sëkk digganteem ak hollandais yi ak français ñu indil ko loolu ñu former murid yi ci formation professionnelle ñuy béy loolu tubaab yi yëpp lu leen jóge Hollande mbaa France lu ci ëpp di jóge ci tool maam si Ibrahima Fall Babul Murid dina ci Dakar ñu jàpp ñu jàppale ko boo demee centre horticulture diggante nun li li nu amoon ay biir ay Dakar ak dimb lanu aman mais Hollande yi ak France yi indil maam si Ibrahima Fall ay mango xam nga mango baatu tubaab la mang mangi mooy garab gu mag gi mooy garab gi li des di doom ba ñoo ko indil guyaab baatu tubaab la ñoo ko indil darkase muy pomme de acajou baatu tubaab la ñoo ko yooyu yëpp tubaab yi ñoo ko indil maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina Hollande yi jàppale ko ak français yi defal murid yi formation professionnelle fur yi bu ñu daan jëlee Europe jamono boobu ëpp mujj seer a faal di ko béy fii ci Dakar ak waa këram jënn jëmm la mais waaye loole nag ak ak ak mbéyum nawet mi muy culture hivernage gerte ak dugub ak gajaanga ak ñebbe ak ñam te ñambi bi tuddul woon ñam bi ñam ñam wi la tudda ñam wi ñam wi tubaab bi nag indil maam si Ibrahima Fall ñam ji fi amante doon ñam bi ju sew ruut te xong ñu indil ko nag yeneen ñam bi yoo xam te ni yii Afrique de l'Ouest la jóge yii Afrique occidentale ñu indil ko nga xam ne booba Sénégal dafa xiif te booba li gën a mën a fajub xiif lu dul ñam bi amul ñu indil maam si Ibrahima Fall ay variété yi ñam bi yoo xamante ni day ñor noor di ñor nawet mu muy ñam wi ñu ni ñam bi kon nag bu loolu amee waaye suuf soosee ak këram googee la muy taaru taaru bi borom Touba ñëwee ñibbisee ci géej gi ba mu boote ko kër Musa Yees Jaañ bàyyi sëñ Mboor Jaañ mii fala ko boote loolu nag doy naa xam ba tey dayab maam si Ibrahima Fall ndax diggante kër Musa Yees Jaañ yi kër Mboor ak ak ak ak ak ak Lambinaas mat na 6 kilomètres mat na 6 kilomètres lu mu néew niiw saa man si Ibrahima Fall boot Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul borom Touba Xaadimu Rasuul ca njàmbaar ga borom Touba Xaadimu Rasul ca martaba ba borom Touba Xaadimu Rasul ca wilaaya ga borom Touba Xaadimu Rasul ci lu lu kenn xamul maam si Ibrahima Fall doonu lu mu tàggoo ndax sëñ Mudu Muntakaa ngi nii seex yi la ñuy bari bari benn seex ñimewut sëñ Muntakaa jëm ci jumaa ja nga naa ko naa sëgg nga war kenn ñëwu ko kon loola bi seen ba maam si Ibrahima Fall di boot seen Touba du lu mu tàggoo seen diggante la ne boot ko ni ko ràpp ci digg ginnaawam sëñ Touba nangoo bootu seen Seera Fall boot ko doo ak mun six mag ñi topp ci waaye ba mu ñëwee ba indi ko ci këram la jël la jël kër googee jox ko ko addiya surface bii ma la wax li muy rëy rëy rëy rëy ak matériel bi fi ne sa saamaan Cheikh Fall jox ko Sëñ Tuubaa addiya delluwaat kon moom Sëñ Tuubaa la bëgg la mu moom rek laa bëgg su bëgguma gën la fi bëgg su bëgg day bëgg alal kon dañ naa léegi tooli Cheikh Rafal yaa ngi nii amu fi kër ba tey nag kër googee sa maam sëñ moo ko jox sëñ Cheikh Coro rakkam waaye waa kër maam Cheikh Rafal moom bi ñu ko joxee lañ ci génn ba léegi nag loolu lañu ne lu ñu am jox sëriñ Tuuba lu ñu liggéey jox ko lu ñu jur jox ko lu ñu bay jox ko ba ñu ko waxee ca ndar ne ko a faal sa diine ji am na ñu ko xeeb de dañ a wax nañu dëgg de ñu ko xeeb maa ngi ko gën a xeeb maa ngi ko gën a xeeb doom waaye dama amul lu ma ci dolli waaye man Ibra Faal lu ma jur jox diine lu ma liggéey jox diine lu ma am jox diine doom diine da moom xeebuma riddan wa rahmatan min allahi ba di xëyri mina dunya ma fiha jami